ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi gërëm mbokk journaliste yi fi ñëw tey fekk ci tey point de presse bi nag lu ko waral mooy bureau municipal bu ville de Dakar bu ñu jot insta mu am ci mbokk yi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 nu ngeen voté seen bureau municipal jaaduwul respecté wu leen lu ñuy woye parité te ma ne maire de Dakar ñu foog ni ni dafa yor doole gi demeewul noonu man mënuma dàq kenn ci conseil municipal bi nekk awma pouvoir boobu mënuma faral kenn ba ne lii yoon mayu la ko wante man dinaa la ko jox awma awma doole boobu ñu demee ci biir ñu ne comme mbir bi ñu la tëddee nañu góorgóorlu ba première adjointe bi mu nekk jigéen wante balaa may développer sax ci sujet boobu ma bëggoon wax ci premier bureau municipal bi ñun waa Yewwi Askan bi ñu ñëpp dañu d'accordoon góorgóorlu ba ci dix-huit euh, bureau yu adjoint na la occupé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 man ma yokkal leen ci ku met na la yàlla may xolu muñ parce que kaay leen ñu wax du ngeen waxtaan mais kaay leen ñu waxtaan nga ne du ngeen waxtaan kaay leen ñu liggéey ngeen ne bëggu leen liggéey waa ma tax yéen lan ngeen bëgg yéen da ngeen wootee sa gàtsa man man gëmuma gàtsa gàtsa man lu ma gëm mooy waxtaan ak liggéey mais loolu jarul ngeen ni ma bëgg a dëkkuloo man fu ma dëkkul parce que man mën naa bañ a bokk gis-gis ak yéen wante su ma baat ci kaw